dama damay xaas amaane sa xaas boobu du ko jar ak li ñëpp doon wax dootoo amaat si sa vie normale dootoo génn comme ni nga war a génne